wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima salaatan wa salaam wa barakatan taquudu biha li shaykh alxadim alxaail li kunta fi lbahri fa shirtu sunduxa inda alcida fali wajjihi sunduxa mbokk yi noo ngi leen di nuyu bi taqiyatin xasana wa kaamila wa hiya assalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu wa naabudullah tabaraka wa taala wa nasruk wa naabudullah ala nicmati allati atamaha alayna seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna fas ak yéen ci lenn ci jataayi sëriñ bi am na koo xam ne bi mu jébbuloo ci sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo da tariloo faman kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal camalan saalixan wala yushrik bi cibaadati rabbihi ahadan mu tariko sëriñ tuuba qaadala wallaahumma axtaaralaho ne ko loole sunu boroom subhaanahu wa taala mooma ci tane ndax li mu ci mën muñ mënuma ko cee muñ siiw na bokkale googu la koy junj di ko xamal ne sunu borom subhanahu wa taala moom mën nga koo bokkale du tax mu génn ci yow ndax moo moom ñépp moo bind ñépp bari ay melo lool bari ay mbindeef lool moom sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu nag képp ku ko boole ak lenn mu bàyyi lak loola li fekk tuuboo ko ndax fi mu aw rekk fi la ñu bëgg a jaarale ku ko bëgg dem ku ko deful itam tooñoo ko sa bopp nga tooñ ndax moom àgg na ba noppi wallaahu aalam sëriñ tuuba xaada la wallaahu maxtaara mas naa am lu ñu ko jëlal ci xaalis ku mu laaj mu ne ko jëluma ko mu mujj dajale ñépp am ku mu wax ne ko diw alal ji may laaj nee na ma yaa ko jël kookee ne ko wax dëgg maa ko jël waaye dama ko doon barkeeloo sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara la ko ne ko nangay xaar bañ jox la ko mu doora tudd barkeelu daldi wax ne sàcc bon na lool waaye sàcc maa ci raw dama bëgg ngeen xam ne alal yi fiy ñëw saa suñu xëyee lu ci ne day wax ak man doonte yaari bekki suukar la ne ma may diw jamu andi woon ngir feglu maanaam dàq lu walla wala fagglu maanaam wut nangam bu ko defee ku ko jël te joxuñu la ci ndigal la ca boroomam doon bëgg yaa koy gàddu bu dee musiba la mu mu doon moytu ci sa kaw la jëm looloo tax xaar ndigal du mën a ñàkk siiw na nettali bi mënas na cee jànge lu bari ba ca njëkk mooy wa in min sayin illa yusabbihu bi hamdihi walakin laa tafhahu tasbixahum ila axirul abiyat ndeke kon lépp loo gis am na ak yëg di xam di wax gis nga hadiya yi ni ñuy waxeek sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo ba tey ñu xam ne kenn warute joxe hadiya te fosoo ci dara su boobaa ak neen lay nuru kon murit buy joxe xàddiya daa war a fas ci xolam sunu borom subhaanahu wa saxal ko ci ndigal yi walla mu musal ko ci tere yi walla mu ne def naa ko xàddiyaay sëriñ bi waaye waruta fas waruta joxe te fosu ci dara li gën ci li ñuy fas mooy mu nekk xaddiyaay sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo ndax bu ko nekkee loole lépp dana ci dugg wallaahu aalam am na naar bu masa laaj sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo mbirum ashaabil kahfi sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo ne ko nett li ci làmmañu boroom la dàqee laaj ko abdurahman loo mii ndax ca la bokkoon siiw na loolu li nga ciy jànge mooy ruux yi dañuy dem di delsi mbirum ruux nag kenn mënu cee wax dara ku dul sunu borom subhaanahu wa ak ñam ca waxloo asxaabul fi nag ay nit lañu woon yoo xam ne seen jamono daa doonoon jamonoy bokkaale yàlla te ñoom ñu wetal ko lool ba ñu leen sonalee ci loolu ñu génn dëkk ba bëgga dem feneen ba ñu duggee ci am xuntu sunu borom subhaanahu wa taala dara dogal ñu nelaw fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bi ñu yewoo dañoo jàpp ne benn fan lañu fa nelaw bi ñu yónnee kenn ca ñoom ca dëkk ba ngir mu jëndal leen aw ñam ba kookee àggee la joxe xaalis ba lañu ko wax ne ko xaalis bi dey kenn jaayatu ko fi laaj ko ay mbiram mu leeral ko fekk njëkk loolu daa dégg seeni nettali bi ñu àndeek waa dëkk ba ñëw ca ñoom fekk leen fa lañu door a faatu loolee di kéemaanu sunu boroom subhaanahu wa taala lool inna allaha ala kulli shay'in qadir wallahu aalam ba tey am na ñaar ñu masa indi ay kaamil ci sëriñ tuuba xaadala wallahu maxtaara loxo mu laaj leen lu ngeen ci jublu kenn ka ne ko dañu ko def ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala ka ca des di nakk nakkal sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara la ko ne ko yéena ko bokk daldi leen di defaral cere ju ànd ak soow siiw na loole danañ ci xam bu wér lu waay di def da ko war def ngir yàlla subhaanahu wa taala képp sëriñ tuuba xaadal wallaahu maxtaaralahu itam boo gisee muy laaj lu bari nangam loo ci jublu day mel ni day bëgg képp kenn ku nekk di sellal pas-pasam bu wér bala moo def dara ndax moom ci boppam am na fu muy ñaane boroomam subhaanahu wa mu may ko ak sell yéene ci lépp lu muy waaj a def te mooy li jot bi niyati ladabtidaai shay'un fa anta waahibu ibtidaai ba tey sëriñ tubaax xaadale wallaahu maxtaara loo gis mu di ko jëfandikoo ci ñam yi xamal ne lu baax la ci diine ak wér-gi-yaram moo tax soow ak cere ci lii mu leen defal ku ko man di jëfandikoo danga am ak wér-gi-yaram ndax cere moom sax na ci xadiisi yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa ne moo gën ci ñam yi soow itam gis nga ne moom la sunu borom subhaanahu wa njëkk a jox nit ci àdduna te it bokk na ci dexuk ajana dexuk soow wa anharun min al laban wallahu aalam ba tey am na ku masa wax sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu ne ko doyloo gi ñu la doyloo daa far julleetuñu yu bari defatuñ ko sëriñ tuuba laaxu laahu maxtaaralahu ne dënn ba mu yàgg mu ne ko bu ngeen demee na ngeen ci boole bàyyi lekk ak naan siiw na kon doyloo mooy ki nga doyloo li mu lay digal nga di ko def li mu lay tere nga di ko bàyyi waaye doyloo waay te li mu lay digal defoo ko li mu lay tere bàyyi woo ko daa mel ni doyloo woo ko ginnaaw loolu itam war nañoo xam ne téeméeri junney nit yoo gis kenn bokku ca moroom ma tolluwaay ci kàttan ak pas-pas ak xam-xam moo tax ku nar a ñépp nanga sonn lool julli ak woor ak asaka ak xaj makka ak wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ñooy ponki lislaam yi nga xam ne yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moo ko taxawaloon sonnoon lool ci taxawal leen ginnaaw bi mu taxawee daa dem ba jamono wëlbatiku ba sellal ga ca waroon a am amatul te yàlla tabaraka wa taala du nangu lu dul lu sellul looloo waral sëriñ tuuba qaadala wallahu maxtaaralahu doon ko yeesal ci ay mbindam bi ko ci yàlla tabaraka wa taala dimbalee itam ñépp xam nañu ne dimbali na ko ci ndax yokk na sunu wéetal yàlla lool te bu njëkkoon dañuy wax laa ilaha illallah képp ba tey tax na itam sunu xel dem ci yàlla tabaraka wa taala ba duñu sàcc duñu fen du ñu def lenn loo xam ne julli daana ko tere ca jamonoy yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi inna salaata tanha an alfahshaai munkar tax na itam ñuy joxe loo xam ne gàcceel na asaka ngir jëmmi yàlla tabarak wa taala tax na itam ñuy màggal mboolem barabi yàlla yépp ak niti yàlla yi waaye bi mu defee lii moom sëriñ Serigne Touba xaadalawallaahu maxtaaralahoo ba noppi itam bëggul kenn kuy bàyyi sariya daa bëgg kenn ku nekk nga cay def la nga man tey moytu seytaane ndax bari na ku bàyyi julli te waxtoo julli ci ay caaxaan rekk la nekkoon wér na lool wallaahu aalam mbokk yi ñoo ngi leen di jox di daje ëllëg incha allah di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom subhanahu wa guddal aw fanam lool yokk kàttanam ba mu mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul jërë ngeen jëf.